booy lire livre buñ la ko indilee nekkagul livre fek ngay xol ban jarign la amal ci société da ngay xol livre bi kat boko ko génnee la lay jull lan la la mën ci société bi dañu nekk société bo xamantene nit mën bind ak style bu baax ci livre ñeu indi ko Harmattan Sénégal ñu xol muy wax ci walu homosexualité lolu mengowul ak suñu valeur mengowul ak suñu réalité sociale kon lolu kenn du ko mën bind par contre nit mën bind style bu baax mu méngoo ak li nga xamante ne politique publication bu au Sénégal muy wàllum valeur une éthique une morale une science ay essai gis nañ ñu bëri ñu ci def foofu nag la domaine bi nga xamante qui est di docteur Assane Diegane ci la binde, parce que moom mi ngi bind ci wàllu histoire ak document mais domaine boobu bi mu koy bind pour répondre ci euh, question bi ñu me poser ça. dafa am lu am solo yoo xam daf ko ci def parce que di bind ci sa mam, nit ni mën ni jàpp ne da ngay bind ci koo xamante ne fa nga bokk kon lu baax nga cey wax waaye faw ñu bu ñu fàtte nit aussi buy liggéey résultat wu liggéeyam day porter en réalité formation day porter en réalité moom li mu en tant que tel il est scientifique am na approche épistémologique bi demander distance bi demander objectivité bi ressources et ses références loolu boo liiree livre bi di nga ko ci seetlu beneen bi mooy naturellement une démarche spirituelle parce que livre melni mel nii mënoo ko bind te une démarche spirituelle une sensation spirituelle loolu nak day dugg ci walum subjectivité te loolu kenn mënu ko bañal ki nga xamantene mo moo bind bi les livres dañu nek ci jamono bo xamantene sank ki nga xamantene mom mo moo doon présenter livre bi wax na ci jamono crise lañu nek ay crise buñu amé amee képp koo xamante am nga loy doxal ci moma rew crise ba boo jàppee ne mucc nga yëgoo xew kum mënti doon mu yeen di man mii kon ñun day jaadu ci suñu politique publication ñuy defar lépp loo xamante ne day gën a ñoŋal am société livre bi boo ko liiree ñun ñëpp daf ñuy delloo ci fu ñu bokk ci ñun ñooy kan face aujourd'hui aux crises identitaires yi nga xamante ne moo am ci àddina bi ñun tey ji nii ku lire livre bi da nga ne kat a ah, ca Thiès am na benn góor gu yàlla gu mag koo xamante ne bi jamono bi ñu tollee ci jamono bi tubaab bi nekk fii liggéey na fi def na fi lii woote na fi lii ba ñu egsi fii tey loolu identité loolu moomeel la te waruñu ko bàyyi mu dem pour ñi ma euh, ñi ma xamul docteur Assane euh donc lycée Malick bi la jangé am fa sama baccalauréat série S1 donc série C à l'époque donc bi ma fa amé sama baccalauréat ma dem France effectivement ma ma jàng wàllum xarale yu bees yi waaw ay mathématiques physique luma ma bëggoon loolu bi loolu jàllee après ñu gën a euh, xóotal xarale yu bees yi doctorat effectivement euh, en physique générale bind ma ni ma dikkee dinaa ko wax ci salle bi sànq xale yi laata ñuy commencé bu ñu ma tàgg woon du ñu du ñu yëkkati tàgg Tafsir Ahmadou Baro parce que bu ñu ko dee bu ko dee tagg euh, dafa xaw ma lan la mënu ma ko comprendre day mel ne am na benn force boo xam ne buy jóge ci yow man xaw ma lan la du pour tagg sa maam waaw donc donc j'ai j'ai bien euh, kii question vraiment du pour euh, pour tagg sa maam bind bi maa ngi ko doon wax waa ji léegi su ma nekk yow tey jii est-ce que yow xam nga say maam yow say maamaati maam de eh, fii ak bu ñu jàppee est maam xam nga woon mooy kan est-ce que sa xam nga sa maam loolu du doo sa asan cig rek ko war a def képp kuy jilli da nga war a yow xam say maam xam sa parcours concret c'est vraiment pour vulgariser pour vraiment euh, euh, remettre les choses essayer de remettre les choses en place.